aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki julli ji maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku si nekk sa tur ak sa sant man maa ngi tudd Mouhamadou Moustapha Thiam euh, secretaire général de la fédération nationale des personnes handicapées bu Touba. Euh, li nga xamante ni nag moo ñu taxoon a jóg tey dafa am benn polémique polémique boo xamante ni dañ koy dégg mu xaw nu jaaxal trop mu tukkee ci Baye Saliou Ndiaye ancien président fédération bu Touba euh, Baye Sall daf ñu jiite lu tolloog fukki at fukki yi mu jiite association yi nekk Touba yëpp. bu dëgg deug amul ben association bo xamanteni gis na bopam ci liggéeyu Baye sal Ndiaye fukki at dafa ëpp ndax normalement 2 ans wala 4 ans waron nañ def ben renouvellement mu wacc léegi nak yoyep dañ ko jëlale ba mu mat ans bi ñu taxaw seetlu gis ni war nañu woté réunion xolaat liggéey bi naka la demee bi ñu réunion ci biir réunion bi dañu bëggoon def renouvellement ci biir renouvellement bobu sous préfet momo yabal chef de service social départemental di Khadim Ndiaye. ak euh, chef de service social communal bu euh, Touba di Omar Cissé ñoom ñaar ñoo fa teewoon PV ba nga xamante ni moom lañ fa jëlee bi nu paree dañ koo jébbal sous préfet lan fa doon waxtaanee nag mooy renouvellement renouvellement bi bi biñ koy waxtaanee avant muy àgg Baye Saliou Ndiaye dafa buude dafa gedd dem yoonam bi ñu defee waxtaan ba pare association yi nga xamante ni ñoo nekk biir Touba yëpp toll si juróom-ñaari association ñëpp dañu d'accord nangu fal Bathika comme président fédération des personnes handicapées bu Touba. yàlla dogal na Bathika ñoo ngi tàmbali liggéey ak moom liggéey bu rafet benn at lañ liggéey ak moom gis nañu changement kii fukki at leen liggéey ak moom gisuñu dara loo xamante ni euh, def na ko suñu diggante ak ñoom. dañu gis nag mu jàllale benn vidéo bu doy waar boo xamante ni yéeme na trop parce que liñ ci wax sax wax dëgg yàlla manque de respect sax da cee am ñun bootuwuñu ci gannaaw politicien ñun bootuwuñu ci gannaaw chef de service social ñun dañu yor récépissé boo xamante ni c'est apolitique amaa jëmi politique man Moustapha Thiam su ma neexee dem dugg ci politique bàcc ka su ko neexee dem dugg ci politique mais ñun suñu récépissé c'est apolitique ñun politique guñu chef de service social bi nga xam moom moo nekk fii ci diggante Touba ak Mbacké ñoom ñoo ñëw seq ak ñun liggéey bu rafet ñoom liggéey boobu ñoom ñoo ko njëkk tàmbaleel seen bopp ñoom ñoo ñëw seq ak ñun liggéey bu rafet Khadim Ndiaye ak Omar Cissé dañu seen alal di ko def ci ñun di ko seen gasoil jël seen temps di ko def ci ñun ba ñu gis yërmande bi yàlla doon wax yonente bi sallallahu alayhi wa naan ko wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamina ñu gis ko ci Xaadim Njaay gis ko ci Umar Cissé maanaam boo gisee ndaje mi li ko waral nii ko sëñ Moustapha Thiam waxee nga xam ne mooy secrétaire général bu fédération bu Touba euh, kàddu yi gàtt rek lañ ci lañ ciy dolli ndax lim ci li ci mat a wax li wax na ko xanaa kay nun li nga xëy leen koy dëggal nun ginnaaw yàlla dogal na danoo yàgg fii ci tuubaa yàgg jiite handicapé yi mu wóor ma ne Saliou Ndiaye moom xam na xëy ni moom bi muy bi muy bi muy xamante handicapé wala muy nekk handicapé fekk na boo bàcc ka jiite handicapé yaakaar naa ne moom ci boppam bu seetloo boppam xam na ni dafa tas yaakaare handicapé yi nekk Touba gépp ndax man mii wax ak yow kenn gënum woon a am yaakaar ci moom mais la nga xëy ne moom lan lan ci moom ba tax nu fal ko. yàlla dogal nu jox ko suñuy kàddu jox ko suñuy baat te ay mukallaf ma magi jëm loolee dafa dafa jóg jël yoonu boppam mel na ni boppam rek moo ko tax moom moo ko taxan a jóg. léegi ña ko falan ñoo toog folli ko léegi ndax maanaam gistuñ bo suñu bopp ci moom léegi folli nañu ko seqatuñu dara kilifa goo xëy dem na ci yow muy euh, autorité yi ba ci kilifa diine ak ku mu mën a doon. mu ñëw fii ni tudd handicapé na nga xam la nga seq moom sa digganteeg moom waaye seq ko handicapé te boo ko joxee dara ci turu handicapé mel na amel nga handicapé ak handicapé Touba ak ak juree amal ngeen ko. ah ne wax na nag Baye saal Ndiaye nag amatu fi dara ban ko wàccee yàgg na ndax daf ñoo tooñ Baye saal Ndiaye lu ne def nañu ko ci kër àdduna xeex ak ñun sax def na ko ca ñun ba ñuy joxe xar ya xeex ak sax def na ko jaar na ci sun kaw ba tàyyi jàll. procès yii muy wax nag ne amul ñun ñoo ko jëlandoo 600000 yi keroog man ñu koy versi man mi sama kanam la am naa jot na kon war na ne RBC defuñu dara loolu day wax rek moom lim bëggoon la amatut li ab euh, euh, naafiqa moo feeñ. daaw jéeg ci sëñ Sidi taar ba ñu woowee ni ñu kaay leen jël xar yi ba ñu demee ñun association Baye Bàcc Ka dañoo dem toog xëy nañ 6 ci suba ba 6 ci goon ñu toog kenn joxuñu ñuy xar ñu toog ba ci yàgg ñu ni président handicapé yi la ñuy laaj. ñu génnandoog suñuy beek ak suñuy puus-puus ñunu ñu waxuñu leen Baye Sall lañ wax man leen tey jii bu naree yeewi xar dugal ci maalu oto bi dina ma yeewu man dugal ci maal bi ñu génne juróom-ñaari xar ni lii lañ ko daan jox mi ngi nii ma ne ko tey de koo daan jox dana ñàkk ndax ñun mësuñu koo yëg te chaque jour ñu dikk laaj leen génne ñu xar amut ca jamono sëñ Saliou ba léegi Baye Sall Ndiaye bañ ñu ko commencé di fal ba léegi ñu ñuy tudd di tudd aw turam amalaguñu njariñ réunion bu ñu masa woo ñeenti saabu la ñu mas a jox njariñ ñu teg ko bët ak këkki yoo xamante ne dongab daara la moo ko moom ci caaya ñaari meetar fu mu ñu filmuwul yóbbu amut keroog ba muy lijjanti ji loolu ca euh, poor ba dafa dem ba nga xamante ne amul fu mu aw amul lu génn matériel yi mu doog a woo téléphone baa ci ka ñu boole ko ku ko génne te la baax gisuñu ko teguñu ko bët teguñu ko bët ñun wàcce nañ ko ci kanam préfet mu leer nañ ñëpp toog du ay procès verbal la ñu wax xaw ma ma nga ne di taxawee PV baa nga nee taxaw bañ ko wàccee maanaam nag bu nekkoon dañoo war a mars sax buñ dëkkul woon Touba te mars ñu war koo def dañuy jaar ci tali bi mars Baye Sall jiiteetuñu te bëgguñu mu jiite ñu. man maa ngi tudd Medoune Thiam di responsable di responsable régional des personnes handicapées de la région de Diourbel trésorier régional jiite fédération. Sénégal des associations des personnes handicapées communes de Mbacké trésorier départemental département membre responsable handicapé département des structure au niveau national au niveau régional au niveau départemental man fédération fédération constitué 27 associations au niveau national amul ñëw ci région de Diourbel nekk fi 6 associations ñëw au niveau départemental nekk fi 5 associations 5 associations 5 associations yooyu noonu dañ ko fal ci kaw légalité dañ ko fal ci kaw kii mu nekk loo xamante ne nii képp koo xam ne mandaam jeex na waratoo bokk képp koo xam te def détournement ci kaw fédération bi warut dañ la far jëlee karma ku def ko xam te tok nga ay at wala ay weer woote war ñoo ñëw à l'unanimité mbooloo am nañ droit jëlee la fa mu leer ma ni fédération départementale bu Mbacké bi seen mandat boobu jeex na région bi jeex na seen jeex ca loolu yàggut yàggut kon loolu kon naaj bi daal bàcc ka moom mooy responsable bi nga xam moo nekk Touba. man Fallou Wade président handicapé départemental Mbacké maay jël kàddu ndax dafa am ma dégg lool xam ne daal ñu di ko wax ci rajo bi ci loolu amewul noonu ci ka koy wax itam boo xamoon ti biir boo xamoon na may waxee dana boo xamoon na may waxee moom dana kii dana dana tey. ndax maanaam nekk moom doonu toon chef doonu toon dara ndax bàcc ka moo nekkoon toppoon ci man nekkoon Touba nekkoon section moom nag mu jóg di yox wari yori waxam di wax naan nii nangam ak nangam ak nangam di expliqué muy sama mbokk moomu ñuy wi Ndiaye loolu mu doon wax nag dafa waroon a tey ndax maanaam man ma doon président départemental bi kee nekk su section Touba bàcc ka moom laa daa woot di wax ak moom di réunion moom di defanteeg moom lépp léegi nag moom doonu ci woon dara booba ginnaaw gi nag ma dégg muy dugg di wax di nga lalalal dem ci rajo yi amuñu projet amuñu li ci ñun lu ñëw bàcc ka la ñuy waxat bàcc ka wax ak moom projet yi nga xam ne mooy jaar fii yëpp yi ko dale ci ci kii sant ja ba ci yëpp am na ci ba ci RBC ba bu fi mase am am na fi ca bàcc ka la boo wax ko ne ko wol sa section Touba mu ñëw moom nag bi muy laata engagé ay nit di wax dafa waroon na wax wala mu xam wala mu maanaam daal mu doon benn responsable ci biir boo xam ne moom la ñu wax ndax ñun duñu wax ak moom dara ah, ndax Touba am na responsable bu dee départemental bi Ousseynou Diop moo ko jiite mooy départemental bu dee communal bu Mbàkke Medoune Thiam mi moo jiite communal bi bu dee association handicapé départemental man Fallou Wade bi maa maa ko jiite kum neex na a tëdd fa nga nekk yor tey kii di wax waaye nag bu fekkee ne wax jot na daal ba nga xam ne ñoom techniciens yi fi ne muy centre social ak yooyu woo nañ leen danañ woo kilifa yi nga xam ne ñoom la ñu waxat ñu wax ak ñoom kenn ko ne nag bu la neexee nga jaaxaan am sa jot di wax la ngay wax waaw loolu moom moom la engagé